askan bi aussi daneen fay wax bàyyi jëf buggaan ngay daani jërëjëf population yi sant nañ ko ndax nit dëgg am njëriñ du dëgg mm-hmm. waaye bu fekkee ne yow da nga ne mën nga manipuler conscience yi ci nga dëkk wax rek wax wax wax rek comme le disait l'autre là Esther Diouf yow tajoo fenn bisa mm-hmm. ba tam ne maa war a jël réew foo ko teg doo dimbale nit ñi ba ñuy xeex 23 juin yaa ngi woon sa bureau toog wàccoo li fi ñun ñu xeex yëpp yow xeexuloo Abdoulaye Wade dafa xeex xeex ñu xeexle ko ñun ay ati at di taal pneu muy xeex di xeex ba jël réew mi vingt six ans yow ngay xeeb ñu soog a ñëw naan yow yaa ngi soog a ñëw di man lay ku doo ñeme gar de toutes les li am solo daal mooy nit ñi dofuñu wax wax am say xale yu lay saagale fi mu ne ni boo demee ñu ngi ratata di saaga loolu taxul kenn falu duñ ay bàyyi ma nit ku ko amal njëriñ lay jël waaye taxaw di yore sa lamiñ wu di wax rek ba kii jëf nga yow yow koo xam tudd la taasu la defu la dara lu may dimbali na nit ñi yow dimbale woon nit ñi wax rek ngay def mënu koo muñ ndax moom dafa jëf ñëpp kontaan ci nga ne ko yow daa ngi soog a am sey milliards mais politicien bu bees nga waroo politique mais xoolal ma yooyu wax et puis temps yi boo xoolee réseaux sociaux comme d'habitude c'est ces chiens la yi ànd ak moom ah c'est c'est ay boy yoo xam dañuy formé pour loolu yëpp ñoo tekki comme moom wala comme ñun mais ñoom daal dañu naan ba ba ñuy dee nekk ay chien seen baay ak seen ndey bi ñee dugalee école di leen jàngaloo du woon bu ñu topp benn nit koo xam ni da leen di manipuler ba pare di leen forcer ñuy saaga keneen. Mhm. xam na euh, mon cher Malal. waaw l'injure c'est l'arme des faibles. Mhm. ñi amul argument rek. ñoo ñoo nekk ci réseaux sociaux di saaga bu ñu nee El Hadj Diouf ñu saaga. Mhm. bu ñu nee Bougar Gueye Dany ñu saaga bu ñu nee Macky Sall ñu saaga. nañu leen bàyyi saaga yi rek mais bëgg naa brigade cybercriminalité. di daan identifier bande yooyu di saaga ci réseaux sociaux yi. Mhm. bu ñu jàppee lu mat cent. nga xam ne dañuy dañuy ubbi ay ay kii yu bëree bëri tudd Modou tudd Lamine tudd Awa. Mhm. groupe yooyu nekkal benn nit euh, le chef des insulteurs publics. Mhm. seen leader boobu mooy chef c'est le chef d'orchestre saagakat yëpp mooy seen chef d'orchestre. Mhm. léegi léegi léegi. Euh, il faut ñu leen yóbbu leen prison tëj leen. wax nga wax nga ni nga ni nga ni Bougane par exemple il a été un leader exemplaire dem na jàppale euh, banlieue bi si seen seen mbënd mi. yow wax nga yaay député du peuple yaay xaritu askan wi. si mi. ndax dem nga banlieue ak ba nga demee lool def foofa loo fa wax. non demaguma banlieue parce que man du ma du ma opportuniste. Mhm. du jël misère population yi. ah. Mhm. di ko exploiter pour ñu ne man de El Hadj Diouf ñëwoon na fi El Hadj moo ñu bëgg. fekk yow da ngay wut population bi ku la warteel ëllëg. Mhm. donc calcul nga def. yow de kon maître da nga bëgg wax ne Bougane dafa def opportunisme. non non non Bougane dafa indi xalalam joxe. ah d'accord ñi dem wax kese romb fa saaga Macky Sall. Mhm. ñooñu laa ne mënuñ faj duñ faj gàcce. Mhm. duñ faj coono. duñ faj xiif duñ faj mar duñ duñ indi pompe. buy pompe ndox mi mais ñëw rek saaga Macky Sall saaga pouvoir bi dem sa yoon foo ne noonu lañ la joxe réew mi dama ni man du ma dem àndandoog ñooñu. duma dem àndandoog ñi yore seen moyen ñëw joxe man du ma joxe. man li ma mën. mooy ma sawu leen. li ma mën comme dama ko defee assemblée nationale inondation yi am ma def question orale. adressé ko au ministre de l'habitat d'alors muy Omar Sarr. mu wuy si assemblée man mi maa bind question ba. dégg nga may dégg de. Omar Sarr ñëw wuy si wax ci mbënd mi. booba yaayam dafa faatu. ñetteeli fan ba mu ñëw assemblée janoog député yi. gouvernement loolu lañ koy doyee. Hmm. député loolu lañ koy doyee bu am problème amee député yi fi nekk nañ taxaw dégg naa ñu ne ay xaw ma lan déformation yooyu ay caaxaan la na ministre yi ñëw ci turu président wax li ñuy def ci mbënn mi lu des ak li des nuñ koy defee. Hmm. ëllëg ndax dana amati mbënd wala déet. Hmm. loolu mooy liggéey député. man nag suma parti. mooy parti peuple bi parti des travailleurs et du peuple. peuple bi fu mu nekk dama ko fay fekk suba gars yi ñu nga fa ñu ngi leen di nemmeeku. man heure bu ma ko jekkoo. mais ndax def ngeen dara ndax def ngeen dara yow demuloo mais ndax sa gars yi yabal nga leen ñu dem def. ñu nga fa far ñuy yendu fa la fanaan. Mhm. man nag comme yàlla joxuma ay milliards. Mhm. yoo xam ne jox na ko président.